sama soxna Njóoba ma ndeysaan mu nopp lu ko rek ñaanal ko bu baax Mbàkke ak ma bëggoon te doy loo sëñ bi sax ndeysaan loolu wax nee na ma yaa doonoon léppam di ko rek maam moo ne soxna ko bu baax Mbàkke sëñ Tuubaa sa maam taxaw ko fam baali niteel na ma soxna baali boole na ma ci nit ñi soxna baali boole na ma ci taalibe yi boole na ma ci sëriñ si boole na ma ci boppam salaamaaleykum mbokki sëñ daara yi maa ngi sàkku ci yéen ngeen ñaanal soxna Njóoba ñaan di waajuru sëñ Maam Moor mu sëñ Muntaxa tey kenn ci soxna mu Muntaxa ñuy sàkk ñëpp ñaanal ko jàngal koy kaamil ku ko man ku ko mënati mu jàngal ko ñeent fukki suratul ixlaas ku ko manit mu jullil ko julli gii defal ko faatu rawatina guddi gii ba ca ñetti fan yi jëkk ya ñetti fan yi ñu sësal yu yëpp rek di ko jullil di ko ñaanal bu baax a baax a baax yàlla jéggal ko te yërëm ko te wane la ko Seexul Xadiim a gaaw ci barke Sëñ Tuubaa